leeral rek loo xamante ne bi moo na fi tax a daje ndax sama waxi démb mooy sama waxi tey man toujours lépp loo xamante ne bi maa ngi koy yëngu intérêt dëkk bi la rawatina daaru manaan gi nga xamante ne moom laa féete ku ngeen gis ma ànd ak moom ba àndatuma ak moom bëgg ci moom loo xam ne mën na ko te defalu ko dëkk bee tax ma won ko gannaaw waaye duma ànd ak kenn sama intérêt bopp local yi la taxoon ma boycotté itam lu mel noonu la li taxoon ma ne législatif noonu la waaye alhamdulilahi rabbil alamin bi nu yàlla mayee kilifa gu baax kilifa gu baax rek moo am solo kon su loolu amee nun ñii dëkk daaru manaan yéene lépp daaru manaan féete daaru manaan ñu nekkoon fineen parce que amul nëbb naataange askan wi laa nekkoon di fa liggéey-liggéey bu am solo ñoom ñu wax carrément ne seen yaakaar ci Touba mooy Djily Beye man woon damay ko boycotté liste bii waaye bi ma demee ne bëgg bi ma xamee ne bëgg-bëggu sëñ bi képp laa teeyoon rawatina nag mu woo ma jox ma ndigal muy sëriñ Mbàkke mii nga xam ne moomum daaru manaan te nun ñi yeewoo fii de képp koo xamante ne sëñ Mbàkke digal na la defoo ko bu la sëñ Muntaxa digaloon doo ko def ka si ku jëbblu itam bu la digaloon doo ko def ndax fa dëkk nañoo moom fii lim man mu ngi ni ko defal te lim am bàyyi na ko ak noonu bundu xataaluñ kenn ku sa coobare bëggut lu may ñëwee ci ndigalu sëñ bi te man biir na mën a du juyoo ak du juyoo ak sëñ Muntaxa ndigal kon lu ma digal lu ne jàpp naa ne man fa ko jële sori na bi loolu amee nag sëñ sëñ Abdou mii di suñ sëriñ di ku baax ñëpp xam taxawaayam ci parti bi itam lu ne mu yàgg koo daj ci noonu itam nag wax naa ko ko sànq parce que Macky Sall président Macky Sall door a gindee ko ci Touba gindee ko ci Touba mooy ku mel ne Cheikh Abdou mi soo ko amee ci Touba kii naan koo ne yow la te bàyyi ko fa dangaa juum waaye moom mii ku ne xam ne ne moo ndey ak baay yëpp Touba la Cheikh Abdou mooy Touba mooy daaru mais yoonu murit mooy Touba di daaru kon kay suk bi mu ko joxe ñee nag bi mu ko joxe ñee nag liggéey loo nag duggaloo ko ci askan mu sañ a dem nag alhamdulilah rabbil alamin ndokk loolu képp koo xamante ni que da nga ñu jàppale ci politique mbaa lu mën a doon jàpp nga ne jili bay bu amoon dëj mbaa bànneex mbaa lu mën a doon ma teew ca mbaa ma jàppale ko ca na nga wateel président Macky Sall ci kàttanu suñu naa ko ci danaa ko ci def man ba ma ci dara ndax ndegam dama ci daa sama alal ngir yàq rawatina biñ ma ci joxee ndigal ngir defar lu ma am lu nekk danaa ko def ci kàttanu suñu borom bis ni ki tey daal ànd nañu président Macky Sall ci xam mooy borom Daaru Manaan nañ ñëpp xam loolu amatuñ ci nag lenn loo xamante ni moom la ñuy jeexal ci def na lii wala deful lii la waxtaane sëñ bi ci ay réalisation ci dëkk bi nag te war koo def nag loola doy na sëñ bi doy na nu doy na mii loola moom ci kàttan suñu borom yaakaar naa el dara xaju fi waaye élection su jàllee loola moom ñëpp dañu ko mel te loolu moom sëñ bi waxtaane na Cheikh Abdou président Macky kon nag na xam ne bis ñi tey ñi ngi ci Benno Bokk Yaakaar jàppale Cheikh Abdou mii nekk ci gannaawam ci ndigalu kon nag ku ñu jàppale fu mu a nekk waajal te xam ne ñi ngi ñëw ci kàttan suñu borom incha allah rabbi ci loolu lañ nekk. am na ku wax léegi daal li ngay wateel président Macky Sall du moom ngay jàppale du moom ngay sagal waaye sëb sëriñ ngay sagal ndax sa kaddu sëriñ ngay dëgëral te kaddu googu li ko tax a jëg du lenn lu dul daaru marnaan ku ne xam na ne 1960 ba léegi benn tali duggul ci biir dëkk bi. yéen ñëpp ay seede ngeen tey jii danañu tali ba ca jumaa ja tali tali bi nga xam ne moo jóge Daaru Salaam leru raay bi ba ca marché ba ñu ngi toppatoo tali boo xam ne day jóge ca jumaa ja ñëw ci jumaa yi fettu ji xëttale ko ndax lépp njabootu borom Daaru Muxti la kon kook foog naa ne mi ngi jëf ci askan wi kon sëñ jii li lii nga def foog naa mooy li nga war a def ndax jëfe nga si ndigalul kilifa li la ñor yitteel la muy sa askan nga xam ne yaa ngi sonn ci ñoom guddi ak bëccëg loo am lu mu néew a kabar yaa ngi koy bokk ak ñoom gis nga ne président mi ngi jëf ci ñoom kon loolu mooy li nga xam ne mooy li la indi ci biir coalition bi ndax ba doon xaalis dong nga ñëw nga bu yàgg ndax lu ne nit tëju na ak yow proposé la ko nga gàntal ndax ci ay principe nga doon xeex sa place nga bëggoon a jot tey jii nag place boobu jot nga ci. ndax ni la sëñ Mbàkke joxe ndigal noonu nii la ma joxe ndigal ni mu la yilifee noonu la ma yilifee ni mu doon sa wajur noonu la nekk sa wajur kon ndigal li mu joxe fas dañ ko yéen a jëfee kon xamal ne sa place jot nga ci. loolu dama koy seeral mbooleem yéen yi nga xam ne yéen ànd ak moom ngeen takku nag góor góorlu fas yéene jàppale ko ndax moom amul ñu dul yéen buñ àggee ci dimanche 31 juillet ngeen sànni carte wii am bopp fas wi di bulletin bii ma tiim beneen bulletin bu mooma na ngeen ko boxam sànni ca poubelle ba xam ne amulul njariñ askan wi amulul njariñ Sénégal xam nga